da ngay nelaw alhamdulilah fii ngeen gis gis ngeen doj wu rëy wu wile mooy jabalu nuur ah gis ngeen fële ci jubaxtan nga ca kaw a kaw boo fa yéegee fekk aw xur wu fa nekk moom lañ tuddee xaaru boo xoolee di gis ne am na ay yéeg gis nga ni fële am na ay yéegukaay yombut nag waaye terewul nit ñi dañuy góorgóorlu di fa yéeg boo yéegee ba ci kanam nga noppalu waa seetal nag yonent bi sallallahu alayhi wa daan fi ñëw ay guddi ñëw nañ fi koor goo xam ne ba ñu yéegee fiñ toog xef sooy fiñ toog eh, di def suñ ñaan goloo jógee fa lay ñëw këpp sama kurus waaw golo euh, léegi nag imagineel euh, digg bëccëg golo di la fekk foofu ci troisième millénaire foofu nu mu war a mel nag junne at ak ci gannaaw yonentu sallallahu alayhi wa sallam duul benn yoon duul ñaari yoon mu daal ñëw fii te di fi am ay fan di ko guddi mën naa am gaynde amoon na fi mën naa am moo tax fi tam kenn amul ko sallallahu alayhi wa sallam lëndëm gi fi nekkoon ak shirk gi fi nekkoon dafa juddu rek bañ ko waaye mënul koo faj ndax yàlla waxagut ak moom yàlla ji ci ruuxu gi pour mu génn il faut yàlla génne ko mu daan nag jël ay guddi yoo xam ne Xadija daf koy defaral lekkam ak yi muy soxla mu ñëw nekk fi ba yooyee jeex mu delluwaat di xalaat ci boromam ak di ko jaamu te boobu sax wax yu gi di ko gudd boo xoolee lii feeñ jëm ci kaw rek romb na six cent quatre six cent quarante deux mètres bu pekku nag ci suuf lu ma trois cent quatre vingt doj bi nag yaatu lool maanaam loolu lëf la ci doj wi gën naa yaatu noonu wax nañ ne boo xoolee montagne bi yëpp romb na cinq kilomètres yu tegal deux cent ca kaw doj wa nag ca gémmiñ ga wala ca jageñ ga fa la yonent bi sallallahu alayhi daan dugg di fa jaamu yàlla lu jiitu waxyu gi di ñëw ci moom boo xoolee digganteem ak jàkka ji gis nga boo fa taxawaan moom doj bi da daan seen non seulement jàkka ji mais da daan seen sax kaaba gi lu jiitu nag ñuy yokkaat tabax yu bees yi nga xam ne mooy tax doo mën a seen kaaba gi waaye fi ñu fa taxawee léegi rek ñu ngi seen soroor yi jàkka yi ji al masjidul xaraam moo bokk na ci xuur yi gën a am solo gën a siw ci màkka ak ci adduna bi lu tax parce que fii la sama borom tabaraka wa taala taalee juum boobu juumu safara juumu leer boo nga xam ne ba mu tàkkee ba léegi bés bu set dafay gën a jaillir rek pour dajal adduna bi pour daj adduna bi li yonentu sallallahu alayhi wa waxoon ne fu guddeeg bëccëg yekk rek diine ji dana fay yekk kum neex kum naqari ñu de neex nañu alhamdulilah waaye ñoom naqari nag fuñ toll ña ngay xeex waaye kuy xeex yàlla moom doo bëgg mukk diggante mook jàkka ji à peu ñeenti kilomètre fii la nekk ba benn guddi ne fi di jaamu yàlla jibril fekk ko fi daldi ne ko iqra mu ne ko man mënuma jàng te yonentu salaay sallam boo ko bind noonu turam sax mënu ko liir seetal illettré boo xam ne ñii lettré yépp mooy seen sang illettré boo xam ne téere bi mu indi mooy master of literature ba mu dikkee ba léegi waxuma la ba mu dikkee ba léegi la ko ne waaye dafa jëfee àdduna yëpp wax na leen ne bu fekkee da ngeen jàpp ne yonent lii muy wax moo ko waxal boppam indi leen lu mel ni moom loolu wax ci suratu tur suratu lisra yi mu ne nit ak jinne yëpp buñ dajee woon duñ mën a indi lu mel ni alxuraan suratu Hud mu ne indi leen rek fukki saar yu mel ni saar yi alxuraan man noppiloo ko loolu la tuddee falsification test pour nga prouver lii baax na da wax nit ñi ne leen nañ la prouver ne wrong na yonentu nit la ni yéen yaaram la ni yéen jëftu sax jàng yéen ngeen jàng bu ngeen wéyee ñu bind ko koor di ko takk ci kaaba gi di ko tuddee muallaqaat te yonent di jàng alxuraan buñ ca jogee boo déggatee wëy wu gënoon a rafet gën a neex ci yow boo déggee alxuraan dootoo bëgg a dégg wëy lu dul da bëgg a wëcc ñu ngi nii di yegsi ci ndeysaan Seyda Khadija yii lañ sol yii lañ denc you can you can stop xam ne taqif incha allah yi moom foog ñu wàcc benn ñaari minute Habibi ok incha allah ki nga xam ne altine jiñ yónni yonantu sallallahu alayhi wa sallam mook moom ñoo bokk talaata julli bu yonantu jógewaan ca doj wa rawatina guddi googu nga xam ne jibril gësam na ko ñetti yoon mu naan ko yonantu it ngi ca fit wa rek li muy sonn sonn terewut mu ngi naan ko man xaw ma jàng mënuma jàng mu ne ko nag li ngay jàng yow mën a jàng du tax du tee nga mën koo jàng du tax nga mën koo jàng yàlla la koy wax iqra bismi rabbika alladi xalaq habibi iqra bismi rabbika alladi xalaq xalaqa al insana min alaq iqra wa rabbuka al akramu alladi allama bil qalam allama al insana ma lam yaalam mi ngi amee woon ci xur wowle nga xam ne moom lañ jógee ñu am benn ñu wàcc benn minute rek xool bu ñëwaatee waxtaan tuuti ci day xadi jot radiallahu taala anha wala da ngeen a ëpp na sax wàcc nañu wàcc waaw xool ziyaare ko moom mooy ki li ñuy tuddee first lady ñu xadija di wax ki mooy first lady waaw moom sax na first lady moom mooy the first lady C'est la seule première dame, sallallahu alayhi wa sallam.